al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal islam bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي لمي طبيب قلوبنا وأجسامنا وأرواحنا وعلى آله وأصحابه وخديمه شيخنا أحمد الخديم alayhi akbaru ridwanillahi taala albaqi alqadim wa ala jamii alummati kullihim ajmaina ila yawm iddin amma baadu mbokk yi baaxoo ànd ak ñun ci jotaayu laaj ak tontu bi ñuy amal ñuy bàyyilu xel ne ci lañ bëgg a jëm si nii insha allahu taala di ñaan suñ borom gën ñoo defal tawfiq gën ñoo defal ndimbal ak sutura bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waa ji nee na moom dafa amee ay bori julli yu bari nee na xamatul sax ñaata at la nee am na ci diir boo xam ne nag eh, daana julli suba ak gee nga xam ne diir booba ci tisbaar ak tàkkusaan ak timis moom la daawul julli waaye loolu lépp xamatul naka la deme ak naka la toll mu laaj ba xam naka la ko mën a faye ñu koy tontu ne ko waaw loolu de ñu ngi ci gën a jaajji suñ bopp di ci jaajji ñëpp nañ ko gën a moytu wax dëgg yàlla julli yu bariwut te daanaka defuñ luy tee ñu def ko loo xamee ne dox na suñu diggante ak mën a julli amu fi kon nañ ko gën a bàyyi xel bu baax te gën a moytu yu mel noonu yàlla na suñu borom gën a dimbale gën ñoo defal tawfiq ak sutura bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw euh, lim laaj noonu la maanaam kooku day julli rek diir boo xam ne leer na ko ne moom day ëpp waaye yeesut bu fekkee diir bi nga xam ne daawul julli génn julli nga xam ne day sikk sàkk ba xam ñetti at la wala ñeenti at la wala nàngam na ko def ba muy juróom-ñaari at nga xam ne leer na ko ne moom diir bi nga xam ne daawul julli génn julli moom bu ko boolee du mat juróom-ñaari at mu daal di julli fay luy tolloog juróom-ñaari luy tolloog juróom-ñaari at bu ko defee mu daal di koy wàcc bu ko defee diir bi nga xam ne remarqué na ne tamit daawul julli tisbaar ak takkusaan ak gay mu fay ci ay tisbaar ak takkusaan ak i géeye loo xam ne leer na ko de fi mu toll nii day ëpp waaye yeesut bu fekkente ne jàpp na ne diir bi mu def loolu daal toll na ci ñaari at wala ñetti at diggante yooyu la na na na na fay façon boobu tisbaar takkusaan timis mu di ci fay di ci fay ba nga xam ne war naa mat ñeenti at nga xam leer na ko day ëpp fi mu toll nii waaye du yees hakadaa lim laaj ba xam laaj na ne lu bari day dégg ci nit ñi ñu naan da ngay def julli goo julli ko julli goo julli julliwaat ko euh, nee nag loo léeg-léeg da ko dul mane noonu muy laaj ba xam dana mën a def bu guddee bu liggéeyee ba wàcc daa di fay lu mu mën a fay ci ay julli daa di koy bind saa bu amaatee jot mu fayaat lu mu mën a fay ci ay julli bind ko continuer noonu ñu koy tontu ko waaw loolu tamit mën naa nekk du tee dana wér du tee fay gi dana wér euh, loolu ab xeetu astuce la rek bu ñuy joxe Euh, façon boobu muy faral di dégg ci nit ñi ñu naan da ngay jul dafa doo julli julli ab xeeti façon la ci as tuus la rek boo xam ne dañ koy wax ngir jàpp ndalal ko nit ki waaye tekki wu ne noonu kese lañ ko mën a fayal waaw nag yow noo ko mën a defee noo xam ne du yàq sa liggéey euh, waaye nag li jiitu moom da ngay fexe kon lii ñëw bu ci sàgganeeti julli li des ci sa dund lépp bu ci sàgganeeti julli boo noppee la la faatoon nag nga di ci fay nga di ko fay ndànk-ndànk di ko fay ndànk-ndànk te di def yitte saa boo amee temps boo xam ne nan nga caa nekk ci internet yeeg télé yeeg yooyu ci ay caaxaan nga gaaw fay ca boori julli yooyu loo fay bind ko daan ne am naa benn bis am naa nangami bis boo nattalee daan ne xam naa li ma sàggan ci julli yépp boo ko boole woon du ëpp ñaari junni bis boo amee jot daal di fay daal di daal koy bind ba nga xam ne leer na la ne fi mu toll nii matal matal na ñaari junni bis yooyu waaw loolu tamit lu mën a nekk la insha allahu taala sëñ Euh, day faral di dégg ñu ne ku amee bori julli sañu ta naafila nee na te moom nag mu jëloon al wirdul maxuud muy wirdu wi Sëriñ Tubaa radiallahu anhu jot mu tukkee ci suñ borom subhanahu wa taala jaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sart ni ko sëñ bi waxee euh, ngay julli guddi gannaaw gee nga julli fukki rakka soog a def safaak witar léegi day ba xam moom euh, ci nii mu demee mu amee boru julli ba noppi jël wirdu yi ndax day def naafila gi euh, boole ko ak di jéem a fay boru julli yee kem kàttanam wala boog day bàyyi naafila gi nga xam ne ci sàtt wirdu yi la bokk sàtt wirdu yi la bokk te fay boru julli yee ba noppi ñu koy tontu ne ko dafa war a fay boru julli ba noppi na fay boru ba noppi ndax loolu buñ koy wax ne ci sàkk wirdu yi la bokk day fekk mu nekk ku ko tal te moom fi mu toll nii talagu ko lim gën a tal mooy fay boru julleem yooyu waaw na fay boru julli ba noppi bu noppee nag soo ko continuer programme programme fukki rakkaa yi ak safaag wi tat ci gannaaw gee ku amee boru julli dañ koy tere muy naafi la safa ak witar rek lañ la may ci naafile yi ak ñaari rakkaay fajar ak korite ak tabaski waaw ak li ñuy wax julli muurum jant yooyu rek lañ la may wal ilmu inda allahi taala wa bihi tawfiq sëñ bii ba tey nee laaj laaj bu jëm ci bori koor ndeysaan mel na ne ku amul rëccu la akuk tuub yàlla nañu yàlla dimbale te dimbale ko suturaal ñu te suturaal ko jéggal ñu te jéggal ko te defal ñu tawfiix yi topp sunna ak góorgóorlu ci ndigal yàlla yi suñ kem kàttan insha allahu taala nee na moom it dafa amee bori julli yu bari eh, dafa amee bori koor yu bari laa bëgg a wax nee na xamatul sax at ya nu mu toll nee nag am na ca koor yoo xam ne day woor ba ci digg ba mu bàyyi am ci yoo xam ne day woor ba ci yàgg mu dog koor ga te ko léegi yooyu yëpp la bëgg a ku ko ci dimbale nee na ci leeral gu yaatu nee na noonu la ko waxee ci nan la koy faye ak lu ci aju nee na moom sax àgg na ci fi toll nii mën na di woor bi su set mooy laaj ba xam loolu lépp ndax dana ko man di def ngir fay loolu mu war a fayam déet ñu koy tontu ne ko waaw moom de war na ko mu fay mboolem bis yooyu nga xam ne daaw ko wor waaye bis yim dog ci te tamit bis bis yim dog ci ci tayeef tamit moom dafa war a fay kafaara dafa war a fay kafaara Euh, waaye ni situation am demee situation am ni mu demee moom mën naa bañ a kafaaral bi ci waaye mën naa kafaaral benn kafaara rek mu yóbbaale bis yëpp doonte bis yim docteur tay ko ci lu dul benn ngànt nga xam ne ci coobare boppam la mat na téeméer sax nii situation am demee benn kafaara rek dana mën a yóbbaale bis yooyu yëpp ci li gën a wér insha allahu taala kon euh, mbokk moomu daal ñu koy wax ne ko euh, ñu ngi koy gën a soññ bu baax nag mel na ne tuub na waaye kon na fexe mu bañ a dellees del mu ba bañ delluwaat ci lu mel nii ndax ak càggante dëgg la bu loolu jàllee nag ñu koy wax ne ko waaw na fexe daal ba moom mu wóor ci ay bis loo xam ne dana ko leer ne mboole bis yi masoon a faat fay na ko ci misaal bu fekkente ne moom bi muy am euh, dix-huit ans ci la doon mu kàllaf ci misaal bu fekkoonte ne xool na fi mu nii mi ngi am cinquante ans mi ngi am juróom fukki at kon kooku day mel ne fanweeri at ak ñaar wala fanweeri at ak ñett ci la ko weeru koor fekk kooku mën naa nattale daan ne ah su ma seetloo li ma eh, li ma sàggande daanaka at yi yëpp li may sàggan moo ëpp li ma sàgganul mën naa nattale daan ne kon eh, xam nga at mu nekk wenn weer lay doon at mu nekk wenn weer kon day mel ne fanweeri weer ak ñett la war a doon moom mën naa jël fanweeri weer yi rek daa ñetti weer yi mooy tolloog lim jot a woor woor gu normal daa di jël fanweeri weer kon weeri weer yoo xam ne moom day mel ne mooy lim wóorut normal bu defee noonu nga xam ne na woor loo xam ne daal dana tolloog fanweeri weer muy ñaari at ak genn wàll ñaari at ak daal bu ko wooree ci ci ci misaal mi ma joxe bu fekkee demewut nii tam mën na koo calculer ci anam gu gën a méngoo ak situation waaw xam naa bu bu bu ñu gënoon a leeral daal dëgg-dëgg ay atam fa mu tàmbalee sàggan ak fi mu bàyyee sàggan gi nii dana tax ñu gën ko koo mën a lijjantil waaye bu déggee lii ma wax itam mën na ko cee calcul maanaam mooy day xool at yim sàggan yëpp mu boole ko daal di nattale diir boo xam ne leer na ko day ëpp waaye du yées mu fay lu toll noonu ci ay bis waaye bu noppee nag euh, bis yim dog ko itam moom laa wax ne jarul muy kafaaral bis yëpp mën naa kafaaral benn bis mu yóbbaale bis yëpp te yéene ko ci insha allahu taala kafaara gi nag mooy day woor ñaari weer yu tegaloo wala boog juróom benn fukk ñu ñàkk ku ci nekk mu jox ko euh, lu ko suur wal ilmu inda allahi taala wa bihi tawfiq sëñ bi nee day laaj euh, day dégg ñu wax ne sopp nañ ci taaya ju mujj balaa ngay sëlmal gannaaw boo defee taaya ji ba def ak salaatul ibrahimiya ba noppi balaa ngay sëlmal nga ñaan muy laaj ba xam dafa am ak ñaan spécial bu ñu fay def wala ñaan bu la neex man nga faa man nga ko faa def nee na ndax ba tey yenn ñaan yi Sëriñ Tuubaa di andi ci yenn xasida yi lu mel ni xesnul abraar wala yooyu ñaan yooyu tamit mënees na ko faa def ñuy tontu ne ko waaw aha kay loolu wér la gannaaw boo taayaa ba def asalaatu ibrahimiya ba noppi sopp nañ nga ñaan ñaan say aajo bu baax a baax te guddal ko moom la sëñ bi di wax ci aljawharu nafis ne wa udda wa udda aydan duaa bada tashahudin thaanin unilta rushda kon ñaan gannaaw taay yu mujj yi dañ koo sopp am na ay ñaan nag yu rot yu rot ci ay xadis yoo xamee ne moo gën ci ñaan gu nit di ñaane gannaaw bu taayaa ba noppi lu mel lu mel ne euh, allahuma inni asaluka min kulli xayrin saalaka minhu abduka wa nabiyuka sayiduna muhammadun sallallahu taala alayhi wa sallam wa audu bika min kulli charrin istaadaka minhu abduka wa nabiyuka sayiduna muhammadun sallallahu taala alayhi wa sallam waaw waaye tekkiwut ne ñaan yooyu dafa doon spécial nga xam ne ñaan yooyu kese lañ fa war a ñaan déedéet bépp soxla boo am bépp aajo boo am mën nga ko faa ñaan Cheikh Khalil nee na wa daa ma ahabba lépp loo bëgg rek mën nga ko faa ñaan donte mbirum àddina la waaw donte mbirum àddina la donte sox ak soxna nga fay ñaan wala euh, alal wala yooyu mën nga ko faa ñaan hakada boo koy ñaan tamit mën nga koo ñaane ci num la neexee waaye nag bu fekkente ne mën nga ko wax ci arab euh, sib nañ nga di ko wax ci waneen làkk wudul arab waaye bu fekkee mënoo ko wax ci arab sax nga xam ne wolof nga xam mën nga ko wax ci wolof gannaaw bi nga taayaa ba nopp ba def assalaatul ibrahimiya nga naan ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma nangam ak nangam ak nangam loolu mën naa nekk mhm. noonu mu ko waxee itam ñaan gu mën di doon rek bu doon te ñaan yi nekk ci xasaayit yi la wala yooyu na dug ñaan rek ñaan yooyu yëpp mën nga koo wax foofa insha allahu taala sëñ bi nee na dafa dégg kenn ku wax ne képp koo xam ne dafa ñàkkee teggin na président ak kilifa kilifa ga sañ na ko rey te dara du ko ci fekk muy laaj ba xam loolu waa jooju wax lu wér la wala déet daan ne euh, ndax wax jooju du dàqonte ak yu suñ borom wax ni وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص ñu koy tont ne ko waaw bu fekkente ne liñ tudde ñàkke kersa mooy saaga ko wala yooyu wala lu mel noonu loolu moom tooñ la waaye nag àggul ci kilifa googu sañ koo rey bu fekkente ne tamit président boobu wala njiit loolu day def lu dul yoon wala mu wax lu awut yoon kooko daal di génn daal koy dénoncé daal koy naqarlu wala mu weddi ko loolu tamit kenn du ko tuddee ñàkke kers kenn du ko tuddee ñàkke teggin waaw kon lu wax jooju daal wax ju doy waar la wax joo xam ne neexuta neexuta dégg neexuta nangu lenn daal laa xam koo xamee ne dafa woote ne nañ dal ci kaw président bi ci anam koo xam ne mën naa jur fitna ci réew mi kooku lañ wax ne nañ ko téye maanaam nañ def luy tax euh, fitna jooju mu nar a yee tu juddu loolu lañ wax koo xam ne day jub nar a jéqi fitna nar muy wax wala muy def loo xamee ne mën naa jur fitna ci réew mi di ko jëmale ci président wala yu mel noonu kooku lañ wax ne nañ ko téye téye gi nag ni ku ne dañ koy daal di rey xëy na téye gi nag mën naa dem ba àgg ci ñu ray ko bu demee ba nga xamee ne leer nañu ne mënuñu koo lijjantee ci lu dul ñu ray ko nga xam ne rey ko rek moo mën a tax mu bàyyi fitna jooju mën a reyee kon bu boobaa kat dañ naan ñaari lor bu dajee nañ jël ba gën a woyof nañ tàbbi ci lor ba gën a woyof bu ko defee ray ko moom mooy gën a woyof muy jeqi fitna bakkan yu bare bari di fi di fi di di fi loru lii daal laa xam ne moo nekk ci lislaam waaye ku wax dara président wala dara rek wala ak kilifa ñu jàpp rey moom wax dëgg yàlla xawma euh, euh, euh, lenn lu koy tegtale wala ilmu bi nee day laaj soxna soo xam ne dafa summi koo ak boroom këram nga xam ne da koo fay xaalis ngir bëgg mu may ko baatam nee bu ko mayee baatam ba noppi euh, gannaaw yi ñu bëgg a àndaat ndax dana mën a nekk wala déet bu fekkee mën naa nekk naka lay nekk ñu koy tontu ne ko waaw loolu ñuy wax fasam suñu moom nag fase mu facc lay doon danañ mën a àndaat de waaye dañuy laajaat ndaw si ba mu d'accord ndaw si day d'accordaat ba noppi góor gi day joxewaat ak can ba noppi dañ koy fasaat waa ñett yooyu yëpp da ciy amaat waaye bu fekkente ne loolu amutoon ni ko doon summi nga xam ne góor gee ko noonu kese kese rek comme fase yi faral di am rek loolu la ñu tuddee fasem fayle góor gi dana ko sañ a jëlaat du joxewaat can duñ laaj ndaw si ba xam d'accord na wala déet te kenn du ko fasaat itam danaan jëlaat naa ko rek am ñu ko seede jëlaat ga daal di wér sëñ bi nee day laaj koo xam ne dafa nekk akuk nit kooka di jëw te munu ko wax ne ko noppil bàyyi sa jëw gi te itam mënoo jóge ci bërëb ba ndax lu mel ne ngeen nekk ci oto bokk nekk ci oto mu am ku muy jëw wala yu mel noonu lu mel noonu lan moo ci pexe lu koy tont ne ko waaw xam naa lu mel ne changé waxtaan jékki-jékki rek eh, daal di indi benn débat daal koy forcer xam nga loolu dana am siif débat bi jékki-jékki rek forcé dugg ci benn débat fexe ba mu bàyyi loola fekkent ne jàpp nga ne boo ne ko bàyyil ki ngay jëw dana indi ak noonoo sa digg moom ci anam boo xam ne mooy gën a doy waar mën na ci doon pexe wala bu la leeree foofu la jëm bu tuddee nit ki rek nga wax lu baax la nga xam ci moom ko defee dootul mën a tey jëw bu jékki-jékkee ne diw de nga xam da koy bëgg a jëw nga ne ak a baax waay nangam nangam daal di wax dara ci ay ngëneelam bu ko defee dootu ko mën a tey jëw sëñ bi ba tey nee day laaj lu mel ne jaxasoo góor ak jigéen yiy faral di am ci oto yeeg yu mel noonu euh, oto transport en yi transport yi ñu bokk daal euh, jaxasoo góor ak jigéen yi ciy faral di am loolu lan la ci lislaam wax ah euh, li ci lislaam wax mooy li mu wax ci jaxasoo góor ak jigéen rek daganul daganul waaw daganul Euh, nit ki da ko war a moytu kem kàttanam da ko war a moytu kem kàttanam bu mun ta ñàkk dugg ci oto yooyu itam mu fexe baña laalante ak jigéen fexe bañ laalante ak jigéen kem kàttanam bu demee nag ba sës nga xam ne euh, amul lu mu jëlee taxi te mun ta dox te mun ta jënd oto euh, nga xam moytu nag kem kàttanam ba loolu moom suñ borom mën na koo jéggal ci mbaaxam ak yéen ma dégg waaye nay moytu kem kàttanam rek nay moytu kem kàttanam waxakaga dafa xaraam rek ni lépp waaye nag ku dem ba amul pexe daal loola du du tax mu dagan ci moom waaye suñu borom mën na koo jéggal laa wax rek ci mbaaxam ak yërmande ba tey sëñ bi nee na mbirum jaam la bëgg ñu gën ko koo leeral naka la daan demee ak Euh, lu ci aju daal waaw jaam moom njëkk lislaam daana amee ci ay anam yu wuute anam yu bare bari sax léeg-léeg ñoo xam ne dañuy xeex dañuy xeex ak i nit buñ leen jekkoo daal leen jàpp jaam léeg-léeg ñoo xam dañuy jékki rek daal di euh, sàcc kenn jékki-jékki jàpp kenn def ko jaam wala yu mel noonu wala nga gis koy dox nga jékki-jékki daal koy kar jàpp ko def ko jaam anam yu bare bari daal lañ koy defee jaam lislaam nag bi mu ñëwee jaam yam fi fekkoon ñu doonoon jaam yooyu daal diwul dindi ni seenum jaam déedéet waaye dafa sakk bunt yépp daan ne benn anam rek ci lañ mën a amee ci jaam muy ay yéefar ay yéefar daal nga xeex ak ñoom ba jékku leen ba jàpp leen ña nga jàpp ci ñoom ñooña mën nañoo doon jaam ku ca nanguwut a tuub balaa ñu koy jekku anam googu kese lislaam bàyyi léegi ci anam yiñ mën a ame jaam waaye yeneen bunt yi ci yëpp da koo tëj léegi euh, jaam nag mooy loolu moo yàlla ci boppam ñi bindee àddina moo doxalee noonu am nit ku yilife ak ku ñuy yilife jaam nag nit ku ñuy yilif lay doon ñu naan diwa ko moom waaye xam nga ne moom dëggantaan moom yàlla rek ko def ñëpp jaam yàlla rek lay waaye euh, li muy tekki mooy nit ki yilif na kii yilif gu gën a yaatu goo xam ne moo kawe yilif gi njaatige di yilif surgaam comme yow ki nga xam da nga koo jël mu ngay liggéeyal nga di ko fay yaa ko yilif waaye gi demewut noonu taawam ak liggéeyam rek ci nga ko yilif waaye yilifoo jëmmu ja bu dee jaam nag da ngay yilif jëmmu ja loolu moo leen wuute waaw koo xam ne yaay yilif jëmmam waaw bu njëkk am na koo xam ne daan ñàkk bu amee ñeenti doom daal di jaay ñaar ña xaalis ba mu mën cee faj ay soxlaam waaye yooyu yëpp lislaam bi mu ñëwee da koo sakk buntu yi yëpp lislaam da koo tere loo ñàkk-ñàkk sañoo jaay say doom di leen def ay jaam waaw euh, noonu daal noonu daal noonu daal la deme xaasira boo amee jaam nag lislaam da lay wax ne bu dee jigéen na da nga sañ di ànd ak moom di séq ak moom li ngay séq ak sa soxna waaye nag bis bu xasee tollu bis boo xasee aju ci yow daal boobu de daal di gore doom jooju mu am ak yow doonte doom ja sottiwut waliyaadu billah nga xam ne dafa avorté wala yooyu l'islam day daal di wax ne euh, léegi gore na waaw waaye nag teewul danga mën a continuer séeg moom ci buntub jaam ba léegi doonte gore na noonu lañ ko sëñ bi nee day laaj lan mooy nay waaw nay de mooy euh, alal ji nga yore moo xam xaalis la moo xam leneen la pour mu génn ci yow doon loo xam ne day xaw a metti ci sa xol nga xam ne lépp luy génn ci yow euh, ci xaalis day mel ne day gis ci yow rawatina bu fekkente ne day génn te leneen du gudd bu fekkee day génn leneen du dugg mën naa xaw a tane muy jaay buy booy jaay ak booy jënd waaye bu fekkente ne day génn rek te leneen du dugg muy maye wala yooyu foofu la day day metti ci yow nga xam ne day mel ni ci sa xol daal doo doo sawar ci def gin koy def loolu mooy may mu nag jikko ju bon bon la ci melo yi waa safara la bokk wala iyaas billah tabe nag mooy safaan bi mooy mbooleem lépp loo yor ci xaalis boo koy joxe joxe ga du doon bi gis ci sa xol waaw day doon loo xam dañ ciy ànd ak mbégte waaw joxe daal dalay yomb nay mooy koo xam ne joxe da koy jafe tabe mooy jafe tabe mooy joxe yomb la ànd ak boo koy def nga di ci bég loolu mooy tabe léegi bu fekkente ne bëgg xaalis nag mooy nga xam ne dangay bëgg jëmm ji ci lu dara maa nga xam ne day mel ne dajale gi rek moo la neex noonu ak yor naa nangam waaw waaw loolu mooy bëgg xaalis eh, xam naa day bëgg laaj lan mooy dëgg dëgg bëgg àddina waaw ndax bëgg àddina dañuy wax ne mooy loolu mooy nga bëgg jëmmi alal ji noonu kese waaye am maa bu fekkee da koy bëgg ngir eh, nekk gi nekk loo xam ne ci ngay mën a faje say aajo waaw te loolu nag li koy firndeel mooy doo ci rey sa bopp dañ ci ànd ak sa sago doo ci jaay sa ngor doo ci sàggane sa diine waaw bu fekkente ne alal ji sàmm sa diine moo tax nga di ko wut ak sàmm sa ngor hmm? bu demee ba nga xamee ne wut alal mi ngi tax ngay sànk sa diine wala ngay sànk sa ngor kon kay yow wutoo ko ngir diine wutoo ko ngir ngor waaw mooy loolu ki ko bëgg daal ki ki nga xam ne dañuy wax ne moom dafa bëgg xaalis mooy koo xam ne bu koy wut euh, du ci sàmm diineem du ci sàmm ngorom ki nga xam ne mënees naa wax ne bëgg nag doonte mi ngi koy wut di ci yëngu di ci sonn di ci def lépp mooy koo xam ne du ko jaral jaay ngoram du ko jaral sàggane diineem wal ilmu inda allahi taala wa bihi tawfiq kon mbokk yi xam naa foofu la ñuy yemale jotaay bi di sant suñ borom subhanahu bu baax a baax ci tawfiqam ak ngëneelam yu bëree bëri koy sant bu baax di sant mbokk yëpp mboole mbokk yi ànd ak ñun jotaay bi ñaan nañ suñ borom defal tawfiq defal ñu sutura ko nangu إله رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك